non sans loolu sans loolu Boy Kéré daa am lu muy lu muy wax te loolu man ma ko nangu day yëkkati doomam di wàcce doomu jàmbur na jël ñun ñëpp jur ñu. Mhm. parce que moom làmb loolu la ko séddee. Mhm. Boy Kéré taxaw na fi tale mu ne nañ ma jàngal wax kon de maanaam buñ may jàngal wax dafa mel ni damaa réew. Mhm. ma ne loolu du ma si tontu loolu bàyyi moo wax si doomam rek loolu aw ma lu ma siy wax Boy Kéré lu ko nee na wax si man lu mu wax jégal naa ko na yemale doomam am mbëri nay ñoo yem. comprendre jën keere daan nañ ko fi booy keere dem si plateau bi di dokone foofu comprendre nga loolu fi lañ fekk mais loolu yëpp duñ si wax comprendre nga moom na xam ne ne ñun ay doomi jàmbur lañ noonu la demee ni mu yëkkatee doomam nañ koy yëkkatee man de dama kaa jàpp kon suma papa bi ma jur kese du la neen lu ko nee nag na waa si mbër mi am problème xam a baay bu waxee si doomam mhm. kenn amu si droit tontu. wallaay kenn noonu la demee nag dafa mel ni suma waajur moo waa si man rek. noonu la demee dafa mel ne waajuram moo wax ci moom yaakaar naa ne ki nga xamante ni moom la Quench si yaakaar naa Boy Kairé waajuram la waajuram la ba taxit xëy na bu neer yi tàngee rek lu ne mën naa jóg ah.